Dale ak jàmm mbokk yi li gën a fës ci yéenekaay yi bokk na ci xokkatal bi coronavirus di xokkatal askanu Sénégal ñuy lam-lamee ñaareelu vàggam waaye itam ak njeexital yi mu def ci suñu koomu réew yéenekaay bii di la Soleil naan njiitu réew mi dafa xaar ba dem ca forum du numérique buñ doon amal ni ki démb fële ca jam ñaajo ngir lancer fa ab appel askanu Sénégal ngir rek wax leen ne virus bee ngi fi ba léegi de moo tax yéenekaay bi def ci xëtam bu njëk le virus circule encore na askan wi gën taxawaat ngir jàmmaarloo ko feebar bi di Covid 19. ba tey ci biir yéenekaay national bi di Le Soleil son excellence président Macky Sall moo ngi xelal askan wi di leen ñaan ñu gën a respecté waat li ñu duppee mesure barrière yi mun a fàgg bu baax a baax feebar bii nga xamante ne jamono ji ñoo ngi njortu ni boo moyit ñu dugg ci ñaareelu vague bi sournal bii di Le Quotidien naan le chef de l'État redoute une deuxième vague jàpp rek ne président Macky Sall moom lu ñëpp di wax naan boo moytu léegi léegi coronavirus dañ ci biir réew mi moom italiku ko ko itteel mooy nit ñi jàpp ne coronavirus moo ngi ci biir réew mi ba tey te boo xoolee fan yéene ñu weesu ay fukki cas lañ doon am démb ñu am lu fan ak fanweer ki ñetti cas loolee nag président Macky Sall jàngee ci ne virus bee ngi suñu biir de. journal Binekti immobile ci immeuble Iliman l'observateur nan, il y a une deuxième vague de peur au sommet de l'État jamono ji l'observateur nee na njiit si seen jëmu bopp dañoo tiit bay raf l'observateur Denk expert financier Bidi di Ya. Dia moom mi nga xamante ne moo ngi xamle ne kat deuxième vague bu coronavirus tëj suñuy frontière rënk askan i kër loolu kat day état bi impuissant ci li nga ay deuxième vague bi bu amee état du bu na jëlaat ab koppar teew mu teew ngir rek jagleel ko askan wi Walf Quotidien ne ah xawma lu xew de waaye jamono ji askanu Sénégal ñoo ngi ci njàqare bu rëy rëy rëy ba war a yéenekaay bi bind ci xëtam bu njëkk le Sénégal est déjà dans la psychose journal bi di ñu xamale ni deltu ginnaaw bi coronavirus doon deltu ginnaaw ñépp demoon nañ sax ba commencé ko tàmm yaakaar ne mbas bi dafay faf jaaree jeex ñenn ñi sànni seen masque ñenn ñi dannante benn mètre ñenn ñi faf sax jaaree nañ fa bàyyi jënd saabu ngir raxas seeni loxo ci oto yi nag Faut sani sa gët mu fess circulation surchargement askan ci li nga la tamone vox populi mom lu ko moy qui président Macky Sall ndaxte kay bi xamle ni président Macky Sall bind na ab ngir rek xamle ni ñom beug nañ vaccin bi ñuy ni na coronavirus ba waral kay bi nan président Macky Sall xamle ni sax dina ñi nga ne lañ nous G20 ngir ñu xol ana naka vaccin bobu ci aduna bi wërngal président Macky Sall ñëwaat na ci biir yéene kaay bi di l'enquête di xamle rek ne xarale yees yi dafa nekk li nga xamante ne jamono ji mënut a ñàkk les nouvelles technologies l'intelligence artificielle ak internet loolee daal ay mbir la yoo xamante ne war na ci mun a ñëw lëkkaloog chinois yi américains yi européens yi africains yi ñëpp ñu bokk benn xalaat ngir jëmale yëf yi ca kanam ndaxte moom jàpp na ne génération yi di ñëw amul kenn koo xamante ne war nga mun a ñëw dem di jéegaane ji li da nga war a mun a toog nga dëkk nga jëfandikoo xarale yees yooyu mom beral loxo Mohamedou Lamine Kébé mom mi nga xamante mom mo gagné édition 2020 bu grand prix du président de la république pour l'innovation numérique journal bi nan projet bi nga xamante mom moom la Mohamedou Lamine Kébé jël ci walup agriculture jaarale ko ci internet bi lu am njëriñ la te jar féliciter. félicité ndaxte daal boo xoolee moom lii mu créé day gën bok ci li nga xamante day gën ñongal suñu agriculture mom Mohamedou Lamine Kébé start-upam boobu moo ngi ko tuddee tool bi las le quotidien mom déggé ci né raaya bi nak ñuko jox da koy gën rek dolel waaye waaye itam fexe mu gën a defaraat taxawaayam ngir gën a yokku mbir yi mu taxarnaase ndaxte startup boobu dara taxu ko jug lu dul gën a ñoŋal agriculture intelligente durable et efficace maanaam même li nga xamante ne moom moo di mbay mi ñu jaarale ko ci xarale yi yees yi ak yenn ci jumtukaay yi ni mel ngir di am ay résultats yi mucc ay mbokk yi fii la ñuy yam ak yéen lu gënoon fës ci yéen kaay jaa ngeen jëf